di émission ay xamalante émission bi jàll ñu doon ci waxtaan ci euh, maanaam nit ki nan la war a jiitalee xam-xam ci jëf nan na war a jiitalee xam-xam ci jëf ndax suñ borom kat dafa waxoon ne wala taqfu ma laysa laka bihi ilm yow nit ki bul def dara loo xam ne amoo ci xam-xam borom xam-xam yëpp dëppoo nañ ci ne daganul ci mu kàllaf muy jëf-jëf te amu ci xam-xam dëppoo nañ ci loolu wax nañ ko noppi wax nañ ne ñàkk xam dana jural nit ki muy def lu defuwut jàpp ne lu baax la nit ki mën nay def bàkkaar boo xam ne da jàpp ne lii lu baax la fekk ne du lu baax nit ki mën nay def ak jaamu yàlla goo xam ne na koy defee da cee topp yéeneem fekk dëgg-dëgg bu xamoon du ko defee nii kon julli daa war a jiital xam ci jëf nit ki noonu xam ci wax ndax suñu borom léeg-léeg buy tudd yu bon yi da ciy tudd ay bokkaale yooyu boole ci an taqulu ala llahi ma la taalamun ngeen di wax ci yàlla lu ngeen xamut waaw wax ci yàlla du ngeen xamut waaw wax loo xam ne xamoo ko di lu garaaw loolu lépp li ko waral mooy jëf ta xamoo wala ngay wax ta xamoo seen émission tey bi nag ñu ngi ko fas yéenee jooyal ci eh, jumtukaay xarala yu bees yi xew ay ñu di ko jëfandikoo ak bërëbu dajewukaay yi nga xam ne ci internet bi la amee lu mel ne ay réseaux sociaux yu ni mel fas waxtaan ci njariñ yi ci nekk ak lor yi ci nekk ndax bu ma njariñ am na njariñ su ma lor am nay lor te ab jullit bépp jëf boo xam ne nit ki mi ngi koy jëf benn mu nekk njariñal kese wala mu nekk lore kese wala mu nekk lu am njariñ ak lor bu nekkee njariñal kese loolu moo xam nañ ko lépp lu am njariñ rek jëf nit ki nit ki nit ki da ko war a jëfandikoo bu nekkee lorol kese lépp lu am lool loo xam ne lool kese amul benn njëriñ bu ci nekk loolu lu mel ne ay naan sàngara kese amul benn njëriñ bu ci nekk kon yooyu dañ ko war a moytu nekkee loo xam ne dafa am njëriñ am lor ba tey ñaara mën a nekk benn bi njëriñ li ëpp wala lor ji ëpp wala ñu yemoo benn bu ci nekk eh, bu doon ci lislaam buñ koy jàngale ci lislaam am na ko lislaam gisee lislaam bépp nit ku jëf joo jëf am na gis-gis bu mu ci am comme ni ñu ci émission bi jàll ndax dañ naan diine dañ ko fondement ci juróomi ponk juróom yooyu ponk yooyu nag xëcc njariñ ak joñ lor da caa bokk xëcc njariñ mooy jalbul masaalix wa daf wa darul mafasit mooy xëcc njariñ ak joñ lor lépp luy amal njariñ jullit bi lislaam may nag ko lu dagan lépp lu koy andi lor lislaam tere nag ko bu ñëwoon ci réseaux sociaux tàmbalee ko ci téléphone bi nga xam ne yaa ngi ko amee tàmbalee ko ci téléphone bi nga xam ne yaa ngi ko amee ak lépp lu nuroog téléphone rek da ciy dugg tablette ak machine ordinateur rek lépp bu ñu xoolee téléphone am nay njariñ waaye am nay lor am na noo koy jë jëfandikoo daanaka mën na laa bañ a lor jariñu képp nga cay def waaye am na noo koy jëfandikoo bu lay jariñi dana la lor bu lay jariñi dana la lor te kenn ku nekk ci ñun ñi nga xam ne ay borom xel la xam nañ nañ mën a jariñoo ci téléphone ak ni ñu mën a lore ni ko noonu machine ordinateur waaw boo yoree téléphone képp buñ la wooyee nga wuyu boo amee soxla faj ko ci boo pare teg yaa ngi koy waaye boo yoree ab téléphone foo nekk nekk ci di bës boo amee soxla bës boo amul boo bësee ba amut loo def nga nekk fi di xool loo def léeg-léeg sax da te tee ji léeg-léeg da ci nekk ba mu guddi nga nga nga nga doog a tëdd boo boo tëdd biddanti kon xam nga ne téléphone baa ngi lay lor sëgg gu ëpp gi ci sëgg mën naa yàq sa bëri wala mu jeexal sa ndox bëri ndax lépp ëppal ëppal baaxul ci dara lu mën di doon ëppal baaxul ci ëppal baaxul ci léegi nag jullit bi war naa xàmmee lu am njariñ ak lu am lor lu doon njariñi kese ak lu doon lori kese ak lu njariñ li ëpp loor ji ak lu lor ji ëpp njariñ mu di ko mu di ko xam bu ñëwee ci suñu yi rawatina bu ñu ñëwee ci réseaux sociaux yi ndax sax téléphone bu kese moom daanaka léegi ñu ci bëri it maanaam doxatuñ ci téléphone bu simple moom mag ñi xamul dara ñoo koy def léegi ak ñi doog jot ci téléphone. waaye léegi ndaw ñi sax ndaw mi nga xam ne mi ngi doog dugg ci am téléphone sax ba muy xëntawoo mooy téléphone bi WhatsApp bi bi Facebook bu mën a am snap Snapchat bu mën a am TikTok Instagram ak yeneen yu mel YouTube ak yooyu dëgg la xamal ne application yii yëpp yi ne ci téléphone bi. kenn xaraamalu ko xamal ne Facebook kenn néew na xaraam na xamal ne WhatsApp kenn nekkul na xaraam na waaye nag na leer ne bu la dee tax ngay def lu xaraam xamal ne mujj na utiliser ko xaram na ci yow. bu fekkoon tey da ngay utiliser di ci tooñ ak ŋàññeeg nangam yow day dafa xaram ci yow bu fekkoon da ngay utiliser ay Facebook lu mel ne YouTube di ci xool lu daganut loolu xam ne xaram na bu fekkee da ngay utiliser WhatsApp di ci tasaare ay ñaawteef wala di ci wax lu bon xam nga dafa xaram. bu fekkee da ngaa utiliser noonu eh, snapchat di ci wane ay awra wala lu ñaaw xamal ne dafa xaram ni noonu bu fekkoon nag da nga ko utiliser ngir njariñ da ngaa am facebook di ko utiliser da ngay dugg publier lu am njariñ wala nga dugg ngir lire lu am njariñ boo gisee lu baaxut gaaw jàll ko ni ki noonu da ngay dugg whatsapp jokk ci mbokk ndax whatsapp mën nga ci jokk mën ngaa jékki-jékki ay gëj naa dégg diw sàngam génne numéro war yónnee ko ab vocal siyaar ko wala nga nuyu wala nga woo rawatina jamono ji nga xam ne léegi yu bëri woote woote wuyu lu ci ëpp dafa jaar ci dafa gën a yomb ndax bu dee nga jël sa téléphone woo nit baax na waaye léeg-léeg nga nga yónnee ko WhatsApp day gën a jàppandi ndax nit jamono ji koy woo mën naa nekk ci ay ay xat wala mu tënk-tënk boo ko yónnee woon ab lettre ci WhatsApp message saa su amee jot dana ko sant ni noonu nit ki nga xam ne dafa dem ba nekk bitim réew nga xam ne diggante woo réew réew ni mu métti ak ni mu boo amee danga koy mën a woo léegi kon jumtukaay xarale taw feex la njariñ la ci ñun waaye nag am na ay njariñ am nay lor bépp jumtukaay boo xam ne dañuy tax a def lu bon xamal ne xaraam na ñu di ko jëfandikoo waaye bépp jumtukaay boo xam ne day tax ñuy def lu baax rek kon boo mën si na ko jëfandikoo comme ni ma ko waxee ci whatsapp eh, wax ko ci eh, tiktok wax ko ci yeneen léegi nag bu ñëwee ci njariñ yi ba noppi xam ne am na njariñ te njariñ yi moom. mën nga koo misaalu jërul ma di ko ma di ko tudd ndax borom xel boo ne njariñ rek moom xam na luy njariñ waaye nañ ñëw ci lori yi si mi ñaata mbokk ñoo amoon positif ba mu neex dañu ñàkk positif te la ko mooy jumtukaay yi da gis koo xam ne yox misaal rek ki nga xam dafa nekk ca daara ja nga xam ne ñibbisee gut xam ne moom lañ ko tere ay téléphone kooku day am positif kooku di dundum yëpp ci jàng xam-xam jàng alxuraan ak nangam seen lay nekk kooku mën nay xëy sax waqfam ci alxuraan doon ñaar fukki isib lu mu néew néew mën naa xëy durus lu bari bëri ci xasida mën nay wér lu maaxu suba ngoon du ko toog ay fan du ko ratale mën naa toog ay fan yi fan du gis lu ñaaw lu bon wala lu dégg lu bon waaye kooku bis bu xasee ba dugg ci téléphone rek day maanaam day mel ne addunaam dafa soppiku waxtu yam daan def da koy def ci whatsapp bi def ko ci groupe bi benn groupe bu nekk dana def lu tolloog nit ak juróom fukk ak juróom-ñaar nga bëgg cee bokk ci ay groupe yi groupe yi groupe bëgg lu waaye wax nga tontu ko lu waaye wax nga déglu ko te groupe yëpp ngay bokk ba egg nit ci sax bu bu nit vocalé ak vocal déglu ko mer na bu nit dugalee aw photo ci whatsapp am xooloo ko mu jàpp ne da nga koo jubluwut wala te yooyu yooyu dara yooyu moom am am jot rek ak am jot la rek. nekk noonu bu ñëwaatee ci waxtu julli ñu bëri ci ñun duñ julli fajar mukk ak ak gee ca surtout sax moom waxtu julli yëpp moom ñu bëri dañ ciy sàggan rawatina nag fajar julli fajar moom boo doon dem ci jàkk yi moom jooy da lay bëgg a jàpp boo demoon ci jumaa ji gën a mag ci dëkk bi waxtu julli fajar maanaam bu sàpp gu njëkk ga feesee jàmbaar lañ te la ko waral mooy benn ñu ci ëpp amuñ jom yi julli fajar benn ñaara ba da nga gis koo xam ne moom waxtu ba mu am sax ci guddi gi war ko ne la da koy def ci téléphone ba bu tëddee moom moom bu yeewaan moom waxuma la julli waaye moxtaaram julli ba daroor yi jeex gis danañ dem ba dix heures ñu doog yow te yow dix heures onze ne boo doon xool whatsapp da nga leen gis ñu ci nekk ba une heure deux heures ci loo xam ne mënut a nekk même nit ki mënoo ne ci heure bi nga war a nelaw nga nekk ci whatsapp bi ba noppi nag ba heure nelaw bi jeex nga jugaat di nelaw heure yi nga xam ne ko war a jaam yàlla kon gis nga njëñ lor yi mi ngi commencé am mi ngi commencé feeñ foofu ni ki noonu ñaata nit ñoo dog mbokk ay dog dog ak mbokk jël sukkandiku rek ci jumtukaay yu wees yi lislaam lim daan wax ci jokk ji mbokk jug dox sa tànk seeti diw ni mu amee njariñ waaye ñun ñun léegi daanaka dañoo yam ci whatsapp bi rek yaa gëj ngaa dégg diw ah déedéet fan yii ñu ngi fan rek mu ngi may wakkal waaye nga jug dem seeti diw loolu kenn defatu ko daanaka ñu ba ñu néew koy def ñu néew te la ko waral mooy jumtukaay jokkoo gu yomb gi wax na maanaam dañuy wax ne whatsapp da lay jegeel li sori sori la la jege waaw ba ca des mooy bu nee ci suñ biiri kër ñun léegi bu nekkee ci suñ biiri kër ni ñu dunde muy dund gu doy waar dañu nekk ci biir kër gi man Ibrahima ma yor sama téléphone am whatsapp suñu Mortada yor ab téléphone am whatsapp Mouhamad Fadal yor am whatsapp sëñ bi yor téléphone am am whatsapp xanaa ñoo bokk kër gi de fi ne bu ñu toogoon ci añukaay bi kii mi ngi sëgg téléphone bi di di añ di sëgg téléphone bi kee ma ngay def damay def sëgg téléphone nañoo toog bu jug te kenn ci ñun du wax ak sa morom mën nañoo toog bu jug kenn ci ñun du wax ak sa morom waaw yow sa sa téléphone dafa dem ba sa waxtu wi nga waroon a jox say waajur di la nemmee ko sax joxatoo leen ko ba waxtu wi nga waroon a jaxasoo nit ñi di xam ci li nekk sax defutoo ko waaw foo toll yaa ngi téléphone dafa dem ba yow sax maanaam lekk ni nga war a lekkee normal sax def doo ndax booy sukki sukki ci lekk yaa ngi lekk boo ci bébeen ci bu bëgg a tontu war sax wala loolu ñëpp ñun ñëpp lay dal niki noonu waajur yi ittewootuñ xale yi borom kër yi ittewootuñ soxna yi ndax boo xoolee ñun bu njëkk sax kër ni mu daan demee boobu sax xëy na mën na wax ne jamono demagul eggul fi ñu fi egg bu dee ba kenn ku ne mën a am sa téléphone boobu loolu xéewal la waaye nag xéewal gi na tegu ci na dugg nañ ko sant suñu borom sant suñu borom mooy xéewal gi mu la xéewal nga nga def ko fam la ko def lool. buñ xoolee ci ñun buñ xoolee ci suñ bu njëkk da nga daan dugg ci génn kër goo ne benn télé fi am mooy télé bu mag bi bu heure seetaan télé jotee ñëppay dajaloo di seetaanandoo di waxtaanaale di jokk di jokkante nga xam ne maanaam bër bis bi nit ñi dañ daje ay yoon yoon. waaye bi ne demee kenn ku ne am sa télé bopp nga kenn ko ne sam néeg da nga am kenn amatu soxla ci kenn boo defu dara yàgg ci télé télé nga xam ne waxtu wu ne loo mën a xoolal waxtu wu ne te loolu li ko jub li ko li ko li ko li ko li ko waral rek mooy di jëfandikoo jumtukaay yi te xamuñ njariñ yi xamuñ lor te fii ne maanaam jamono jiñ toll mën nañoo wax ne yàqute yëpp mi ngi mi ngi sosoo ci yàqute yëpp whatsapp facebook awray awray dafa wuññiku léegi suturay xawee ko amutut lu nëbb ndax warsa bi te ji da ngay waxtaan ak diw sax wax ko dala sax mu yónneewaat ko ab xaritam bu mu wóolu ci mu wóolu lay wax bu mu wóolu kooku yónnee ko ab xaritam bu mu wóolu kooku yónnee ko ab xaritam bu mu wóolu yam mu yem du yem fenn mën naa wër ba ñëwaat ci yow waaye nag nit moom bu demee ba ab dëndam xat ba mënut a denc secret na leer ne kam koy denc joxe nettaliit moom moo gën a xat dënd foofu li borom li waykat wax rek ne isa daaqa sadrul mar'i an xifz xifzi sirrihi fa sadru alladi yustawdau sirru an yaqu bu fekkee sa dënd bi dafa xat ba mënoo denc sa secret boobu nan leer na ka nga koy jox moo gën a xat dënd foofu kon bon daal ci gàttal nañ gën a xamalaat nit ne ay jumtukaay yu bees yi nii utiliser daanaka maanaam eh, dañ koy jëfandikoo ca la cay njariñ la bu ko defee lor ja ba duñu waaye nag di ko utiliser foo toll boo ko utiliser woon ba sa bala taxoon nga utiliser jeex sax yaa ngi ut neen noo def misaal nga gis ko na mu jël ko wuyu ba pare wuyu ba soxlaam jeex amatul lu mu def day bëgg jël téléphone ne ci di bës ci leneen ak yooyu amul njëriñ yooyu yëpp mooy sànq waxtu ci lu amul njëriñ te loolu euh, suñu tubaab li waxoon ci ma. Euh, masalu bi rek wa arxabu l-ashyaai lil amwaati raddun ila dunya raddun ila dunya maa l-xayaati wa faqat li yaamalu saalihatan tanfa'uhum in xafalu na boo ñëwoon ci ñi ci bàmmeel nga ne leen pëkk-pëkk lu ngeen gën a bëgg dañ naan leen ah delluwaat donte une la wala lu gën a néew sax ma jëf ci jëf ju baax soo xam ne danaa ma jariñ fi yow yaa ngi ci adduna si bi am waxtu yaatu ay réseaux sociaux mbokk yi nañ àndaat ak seen xel bu baax a baax ci jumtukaay yu bees yi te xam ne euh, la cay njëriñ rek moo ci njëriñ leen loolu amul solo ñu fi kàddu yi di jox dig daje euh, ba beneen yoon ci beneen émission di siyaar baax mbokk yi nga xam ne ñoo ànd ak ñun ci émission bi ak ñi ko doon euh, caméra ak montage beeg ñëpp rek di wax ba beneen incha allah a axira daawaana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh